ay kàddu yoo xam ne dañ ciy jublu yëkkati ko ci turam mu jëm ci jullit ñépp muy ku fi teew ak ku amoon yéene teew te teewoo ñuy jiital ci ñooñu nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo jiite yoonu murit ñu ñaan sunu borom yàggal ko te wéral ko sëriñ bi mi ngi ciy teg kilifaam di woy juram sëriñ Saliou Mbakke mu jiite njaboot ak sëriñ Afia. ak waajuram soxna daba moom borom gaawaan ak mboolem ñi mu bokkal maam ndax ñu ci bari ñëw nañu bokk si ak nun bis bi waaye ñu ngi beral ak cant la bokk yi xëy si bokk si ak nun jataay sunu jataay bii sëriñ bi mu ngi sant bu baax ñi mu bokkal kër borom gaawaan ci njiital sëriñ jiili mbàkke ak rakkam ak sëriñ seexantam mi ak i rakkam te ñooñu ñooy rakki sëriñ bi ak doomi sëriñ bi sëriñ bi mi ngi sant bu baax itam mboolem bokki taalib yi ñaan suñu borom yokk seen xéewal nangu seen liggéey mu ngi dellu di santaat itam képp ku askanoo ci borom gaawaan ci seenu taxawaay ci kër gi ak seenu rafetal ci njiital sëriñ jiiri mbàkke ñuy ñaanal sëriñ jiiri moom itam laal na ko suñu borom yàggal te may ko wér mu ngi def kem kattanam ci kër gi ngir kër gi nekk benn benn lan waaye mu gën a nekk benn te sax lépp luy taaral kër gi itam mu ngi ci guddi ak bëccëg yàlla na ko yàlla defal ndam te noonu rek la ndax ak bokk du dara lu bokk lu ñu mënul a séddoo la ñu mënoon a séddoo ba ñu miraasee la ku nekk jëloon ak cëram li ci des lu ñuy rafetal la kenn mënu koo séddoo sëriñ bi nag di ñaan te bëgg lépp lu koy xajamal ñu moytu ko ya koy xajamal nag dara jiituwu ca ñàkk nawloo sa mbokk mbokk des koy nawloo mën nga pële say bokk waaye gën leen nag yombul ñu bañ a mel ni ñuy alxuraan di wax taxsibuhum jamian waaye waxuloobuhum satte suñu dajee ku nekk mel ni kuy bëgg a far sa morom te suñu tàqali ko ku nekk nekk ci sa deru moroom loolu du jikkoy jullit sama mag ju baax na di sama xarit alaaji maam Cerno Mbàkke mas naa koo seeti daalul ma naan ma dégg mu wax wax ju am solo mu ne nun de noo ngi fii ku ne nu yaa ngi ñëw ñu teeru la soo xagsee ñu teral la soo nu wanee gannaaw ñu ñoŋal sab der mbokk mooy defal ni cofeel mooy dox seen diggante te yëf yi nag sunu mbir lañu ñun te mbir su fekkee ne mën ngaa xëy bés nekk njiit la lu koy jëme kanam kenn warula jaaj jiitu ba ca des ci luy defar bokk mooy sa mbokk soo amee aajo tangatane ko ca taxaw ca balaa mu la koy wax xamal la sa yaatu wi la sunu borom jox te xaj ko ko wallam mi ngi ci biir fa aati sal xurbe àqo wala alxoon waaye di seetaan sa mbokk ci soxlaam yu mu munta faj ngay may ku la naan sama ma jur sa baay téeméeri ju nekk bi yëpp màkk kooku lu xajam seen diggante yaa ko def ak bokk ku ko xajamal dajeeg sunu borom sunu borom fa asli la wax ci aaya kon farata la sëriñ bi mu ngi leen di fàttali yéen ñi mu bokkal kër gi te yéen itam mbooloo topp seen gannaaw ngeen di fàttali mbooloo mi ragal yàlla ak jaamu yàlla te roye ci sunna sayyiduna Muhammad ak njàngalem sëriñ Touba da ngeen xam ne mbooloo mi ay taalibe la naam waaye seeni nawla la ndaxam na ci taalibe yoo xam ne yéena bokk bokk gi genn la kon suñu wëlbati ko jébbalu ci yow Serigne Touba tax waaye du sa jëmm kon seeni nawra lañu sam law nag war ngaa farlu ba du dégg du gis ci yow genn matade ki topp ci yow di xaar nga summi say dàll mu jëlal ko waroo yeex ba mu di la jiitu waxin la te kenn mënulu defit lu ump taalibe yi boroomi xel lañu dara ump leen te li sëggal jëmm sëggalul am xel te ku sañoon ka nga sukk jébbul doo dégg ci moom ab safaan waxuma laa di ko gis taalibe bi taalibe bi jébbul ci yow yaakaar la àdduna ak àllaaxara te su amee soxla su ne këtt ne jonn mu def ci sab nawle di ko ko ñaanloo bàyyi la fa su sañoon su la njëkkee génn àdduna sab nawle taxaw ko te yaay sëriñam yow la yaakaar loolu gàcce te sama maas gii nag mbooloo mi topp ci nun ñu ci bari suñu sañoon suñu génnee àdduna keneen taxawu leen la koy waral ragal yàlla bu ñu gis ca kooku te gisuñu ko ci yow sëriñ bi nag dina fàttali loolu bëgg nu bàyyi ko xel ba loolu du nu ndax yëf yi du nguur yëf yi diine la ñu ngi dellu nag di jaral Cheikh Mamadou Mountakha seetlu nañu ne bi mu toogagul ak bi mu toogee ñooyam yitteem jenn la mooy sàmm ndoroon sëriñ Touba ndoroon sëriñ Touba nag du dara lu may diine lislaam mu ngi koy sàmm ba kenn du jaar ci moom ruur tool bi te loolu nun jullit ñëpp la damay wax ne nag wi ñun ñëppay naan ci soow mi kon ñun ñëpp a ko war a sàmm wala ku ko mënta sàmm it foo gis ñax mu bari wax ko sàmm bi mu yóbbu ko fa ndax ndax soo mu yokk waaye sama maas gi defee ne seen mérite mooy li ñu bokk ak sëriñ Touba waaye jikkoy Serigne Touba seen yoon nekku ci ñiy wax kàddu yu ñagas jëmale ko ci yoon wi ñooñu la ñuy waxal waaye waxuñu ak sëriñ Touba sëriñ Touba kenn mënu koo jam waaye ñu bëgg ñu jox leen cër bi ñu jox sëriñ Touba te duñu melowoo melow sëriñ Touba ñooñu la ñuy waxal tere yi ñu fàttali itam ñëpp ci war a taxaw ndax tere yi ci yi ci nekk yëpp alxuraan wàcc na di ko tere wala hadiisu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ bi daf ko fàttali rek ndax fàttali farata la sëriñ Touba nag sama maas bu yaabus gii soo leen di nettali karaamay sëriñ Touba yam ca bañ a nettali jikko yi dañuy amul lay dañuy defe ne la cay seen wàll mooy fettasu ak daanub jël da leen di wax sëriñ Touba mi nga xam ne jikko kenn dëbb ko ja ragal yàlla ga wakkiilu ci boromam mën a muñ jom ja maanu ko ak nawloo ay bokkam loolu sunu borom def na jikko yi ci képp ku mu bind mu ngi sa biir sa yitte rek moo koy feeñal Sëriñ Tuubaa nag leeralal nañu lu bari ba leeralal nañu cër bi mu am diggam ak ni mu ko amee wax ne karaamati xattu yat yi wax ne lépp lu ñuy yéem ci man maa ngi ko amee ci mbind mi may bind sama loxo ndeyjoor di ci bàkk sunu borom di ci tagg Sayyiduna Muhammad kon yoon waa ngoog ku ko mënul na ma ko mën a war itam war a mën a jeex jéem a xam li mbind mi firi tax di ko jëfe Sëriñ Tuubaa nag digale nanu nu ragal ñett noonu na nanu ragal yàlla ragal ku ragal yàlla waaye ragal ku ragalul yàlla Sëriñ Tuubaa itam damay wax ne mbiram lënt nekku ci benn bëgg-bëgg la amoon muy lislaam lislaam nag ab tool la jullit bu nekk am ko ci aw sas ku bay saw sas ba mu set borom bi digg na la lu la jomb loo xam ne kenn am ko ku dul moom taal jane misaal na ko ci alxuraan wax Seydina Muhammad ne ko wa saa rayta sàmm rayta naximan wa mulkan kabira soo gisan foofee la da nga gis xéewal ak nguur gu kawe wa fiha ma tastaxi anfusu wa talasul ahyunu wa antum fiha xaalidun lépp lu neex ci bakkan rafet ci bët ma nga ko fa dugg da nga fay sax sahaaba yi ridwanullahi alayhim yonente bi sallallahu alayhi wasallam xamaloon na leen ko ba tax seen dund gépp ñu jeexaloon ko ci bay seenu sas ci tool ñu ca bari gudd ñu fan waaye faraloon ba seenu sas set wecc kenn ci ñoom ñu doon ko wax Saadu ibnu Maas radiyallahu anhu wax nañu ne fanweeri at ak juróom wala juróom-benn la dund ci àdduna nee na ñi nga xam ne gëm nañu yàlla tey jëf lu rafet ñoo gën ci bindee fi ak fu ñu mën a bokk nag nee na ñoo ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla la tey jëf lu rafet kaanat lahum jannaatu firdawsi nuzula nee na àjjana firdawsi mooy nekk seen wàccuwaay ëllëg nee na ñu mel ni di gëm yàlla tey jëf lu rafet lahum waajurun xayru mamnun dañ leen di fay fii ci àdduna di leen fay fële ci ëllëg ci àllaaxira lu doomu aadama yokk ca sasoona mu booy ndax ña boole woon xir ak réer ba yokk ci raxbaan ya muy làbbiwu borom bi nee na farataalu ma ko ci ñoom waaye mënuñu ko sàmm dëgg-dëgg sàmm famaarawa aqari haayatiha kenn mënut am ngërëmul suñu borom ci loo xam ne yaa ko sosal sa bopp di ko jaamu yàlla ngërëmul suñu borom ñu ngi ko am ci li ñu suñu borom digal te bari na lu nit di jëf nga laaj ko lu tax mu ne damaa gis ñu bari di ko def te sunu borom saa bu ne walaakin aksara naas laa la cey teg suñu borom moo ne walaakin aksara naas lu bari ci nit ñi laa yoomi noona gëmuñu yàlla laa yaskuruuna santuñu yàlla laa ya'lamuuna xamuñu yàlla laa ya'qiluuna xel wuñu seen diggante seen borom ba noppi it nag wa inna kasiran mina naasi la faasiquun nee na lu bari ci nit ñi dañoo génn topp waxaat na wa inna kasiran mina naasi bi liqaa'i rabbihim la kaafiruun lu bari ci nit ñi dañoo wet ne dañ daje ak seen borom moo tax Serigne Touba daan na fàttali mag ñi lu bari alxuraanul karim ak tëkku yi ci sunu borom tëkku ak digg yi mu ci digg nettali nañu ne mag ñu bari ba ñu koy mujj gis ca jaareem ba mu waxtaan ak ñoom ba noppi aaya bii la jàng wan leen gannaaw gisaatuñu ko ba tey mu muy yaa ayyuha allazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wafalul xayra la'allakum tuflihun guddi gi àjjuma itam nee su masaan dajalee mag ñi di leen fàttali seen borom suñu noppee dañuy tiit ba kenn du dem tëri ci sab sablal ñee dañuy dem fanaane julli ñee di jàngal xaan ñee yore seen kurus di tudd yàlla ak julli ci Seydina Muhammad ba bët set lu ko waral ki ñu yaakaar mu dox seen digganteek tiitum ëllëg moo leen tiital tey te ku gëmal ne danga daj ak sunu borom tegu ci siraatu mustaqim jafe la wa inna lasina laa yuminuuna bil aaxirati ani siraati la naakibun te gàtt xel mi ngi yem ci sax ci di mooy sunu borom ba yaa ba noppi di yaakaar yërmandeem ndax inna rahmatallahi xaribun minal muxsinin sëriñ bi mi ngi nuy fàttali nu mooy ci xër ci sàkku àdduna ak bànneexi adduna sunu borom nee na doomu aadama ci lu ne lay sonn ba mu des sàkku alali adduna laa yasamul insaanu min duaa'il xayr waaye nee na su ko dajalee ba mu bari ba mu war koo dépassé moo gën a nay ñëpp ndax la waantum tam di koo na xasaay na rahmati rabbi isan la am sakatub xasatal infaa nee na magasin yi suñu borom yi yi nga xam du jeex sax su ma ko joxaloon su ma ko joxoon doomu aadama nee na da cay mooy ngir ragal koo dépassé lu tax wa kaana linsaanu xatwara nit dafa ngott sëriñ bi mu ngi sant bu baax ki jiite réew mi te di ko ñaanal suñu borom waaye falal ko yan te defal ko ci ndam ndax su amee ndam réew mi yépp am ndam tawat yi ñu fi daan tawat mu jëm ci dëkk bii ak yoon ba dox diggante Bambey ak Gaawaan toog nu ak moom fi kanam Serigne Djili sëriñ Djili fàttali ko ko mu wax ne mu xamal nu ne doxinu état moo mel noonu waaye yoon ba ma nga ca dinañ ko defar ba màgg ceytu incha allah kon donc ko ci diglu dégg nañ ko itam ba élection yi jàllee mu wax wax ju am solo mu ne kenn gajawul kenn pertul réew mi moo gañe kon delloo na lépp ci loxoy suñu borom mu waxaat ne mi ngi sant ñi ko woteel waaye dina seet ñi ko wuteelul ba xam lu tax wuteeluñu ko te noonu lu kilifa war a doxe kon loolu itam du mat a bàyyi xel la ndax muy ñi ko woteel ak ñi ko wuteelul ñëppay fay impôt te sunu impôt rek moo ko yore sañcaa def lu ko neex te duñu tàmm te su koy dépensé du xàmmee impôt ñi ko woteel ak ñi ko wuteelul sunu borom nag su la joxee alal ju mu xaj say moroom daf laa sant ngay dimbalee sunu borom su la joxee kattan bu mu joxul say daf laa sant ngay baale ak yërëme yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee yërëm leen ñi ci suuf ki ci kaw yërëm leen sunu borom su la jiitalee fi kanam say nawle dafa bëgg nga suufeel sa bopp ba tolloog ñoo ña ca des noonu nag ki gën a tedd ci sayyidina ki gën a tedd ci bindee bi muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waqfid janaahaka liman ittaba'aka minal mu'minin na nga suufeel sa dara ci ñi a topp ndax adduna itam ñu xam ne lépp ci nettali lay mujj kon nag na rafet ndax ñi njëkk a jiite réew mi tey jii ñi nga waxtaanee nañu yore woon réew mi te sunu borom du xeebal kenn ay jëfam lépp lay isaab yomal xeexam te nguur bu dul bu sunu borom it bés lay xaar te nguur ku mu fàttaloo buur bis dana ñëw nga xam ne yàlla rek ay buur maa ngi jégalu ñëpp in uriidu ñee dañuy dem fanaane julli ñee di jàngal xaan ñee yore seen kurus di tudd yàlla ak julli ci Seydina Muhammad ba bët set lu ko waral ki ñu yaakaar mu dox seen digganteek tiitum ëllëg moo leen tiital tey te ku gëmal ne danga nga daj ak sunu borom tegu ci siraatu mustaqim jafe la wa inna lasina laa yuminuuna bil aaxirati ani siraati la naakibun te gàtt xel mi ngi yem ci sax ci di mooy sunu borom ba yaa ba noppi di yaakaar yërmandeem ndax inna rahmatallahi xaribun minal muxsinin sëriñ bi mi ngi nuy fàttali nu mooy ci xër ci sàkku adduna ak bànneexi adduna sunu borom nee na doomu aadama ci lu ne lay sonn ba mu des sàkku alali adduna laa yasamul insaanu min duail xayr waaye nee na su ko dajalee ba mu bari ba war koo dépassé moo gën a ñëpp ndax la waantum tamlikoona xasaay na rahmati rabbi isan la am sakatub xasatal in paaw nee na magasin sunu borom yi yi nga xam du jeex sax su ma ko joxaloon su ma ko joxoon doomu aadama nee na da cay mooy ngir ragal koo dépassé lu tax wa kaana linsaanu xatwara nit dafa ngott sëriñ bi mu ngi sant bu baax ki jiite réew mi te di ko ñaanal suñu borom waaye falal ko yan bi te defal ko ci ndam ndax su amee ndam réew mépp am ndam tawat yi ñu fi daan tawat mu jëm ci dëkk ak yoon wa dox diggante Bambey ak Gaawaan toog nanu ak moom fi kanam sëriñ jiili sëriñ jiili fàttali ko ko mu wax ne mu xamal nu ne doxinu état moo mel noonu waaye yoon wa ma nga ca dinañ ko defar ba màgg ceytu incha allah kon doon ko ci diglu dégg nañ ko itam benn seen yi jàllee mu wax wax ju am solo mu ne kenn gañewul kenn pertul réew mi moo gañe kon delloo na lépp ci loxoy suñu borom mu waxaat ne mi ngi sant ñi ko woteel waaye dina seeti ñi ko woteelul ba xam lu tax woteeluñu ko te noonu lu kilifa war a doxe kon loolu itam du mat a bàyyi xel la ndax muy ñi ko woteel ak ñi ko woteelul ñëppay fay impôt te sunu impôt rek moo ko yore sañ caa lu ko neex te duñu tàggu te su koy dépensé du xàmmee impôt ñu ko woteel ak ñi ko woteelul sunu borom nag su la joxee alal ju mu xañ say moroom daf laa sant ngay dimbalee sunu borom su la joxee kattan bu mu joxul say nawle daf laa sant ngay baale ak yërëme yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yërëm leen ñi ci suuf ki ci kaw yërëm leen sunu borom su la jiitalee fi kanam say nawle dafa bëgg nga suufeel sa bopp ba tolloo ñoo ña ca des noonu nag ki gën a tedd ci sayyidina ki gën a tedd ci bindee fi muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waqfid janaahaka liman ittaba'aka minal moom na nga suufeet sa dara ci ñi la topp ndax adduna itam ñu xam ne lépp ci nettali lay mujj kon nag na rafet ndax ñu njëkk a jiite réew mi tey jii ñi nga waxtaane nañu yore woon réew mi te sunu borom du xeebal kenn ay jëfam lépp lay isaab yomal xiyam te nguur bu dul gu sunu borom it bés lay xaar te nguur bu mu fàttaloo buur bis dana ñëw nga xam ne yàlla rek ay buur maa ngi jégalu ñëpp ñu ngi